Euh, ñu recevoir nag euh, suñu euh, suñu invité bi parce que moom tey dafa teel a wàcc ci plateau bi. ah danga moom da nga teel a wàcc. wàcc da nga def. maa ngi ngi ci jàmm. jàmm rek les autres et eh, rigole xamuñu ni yow wàcc nga sant. te xam nga oh, wàcc daanoo ci gën a gaaw. <laughs> Eh, wàcc nag dafa neex de. kay. kenn mënu ko wàcc lan la séeréer la walla wàcc ils sont séeréer séeréer ngi séeréer la wàcc. séeréeru siin. ah séeréeru siin d'accord Fatick Boof waaw. ah d'accord man feneen laa la bëggoon yóbbu mais wàcc waaw wàcc wàcc. waaye Fatick neex na de bàyyi ma foofu rek. ñu bàyyi la fa. déjà man samedi fa fa laay yeddu. jeex na. fa yenn si il faut nga tegtal ma sëkk seen kër comme ça ma dem añee foofu. amul benn problème n'est-ce pas damay laajte famille wàcc bi nekk Fatick Fatick ah. da ngay laajte Fatick rek euh, ñëw ci ba boof. ba boof ah? su ma demee boof ñu yóbbu la <laughs> rayal la nag. <laughs> merci bienvenue euh, ñu ngi jëm euh, ci bis bi ñu jagleel xeexu jàngoro bii di tuber tuberculose di bële la fii ci Sénégal nag yéen a ngi koy préparer yéen waa programme national de lutte contre la tuberculose ndax mën nga ñëwaat tuuti rek ci solos bis boobu. waaw merci euh, ñu ngi nuyoo d'abord. Mhm. Euh, c'est vrai mardi prochain inchallah le 24 la ñuy fête au Sénégal la journée mondiale contre la tuberculose. Mm -hmm. euh, solos euh, bis bi ñu ngi koy jëlee ci feebar bi doyo bi mu am ci dëkk bi. Mhm. parce que tuberculose ñu bëri ba tey dañuy foog ne feebar bu amatul la Sénégal. Mhm. ñu bëri dañoo foog ne tuberculose bu njëkk ba lañ ko doon am. Mhm. ñu bëri dañuy xam tuberculose tamit ñu bëri dañuy nëbbatu parce que pour ñoom tuberculose du lu ñuy faj. du wala dafa cher faj bi. alors que tuberculose lépp gratuit. doo fay dara ci faj bi wala wala ñu jàpp ne ku ko am sax ñu benn la da ngay wér. da ngay wér. da ngay wér ba pare jarul beddi malaat bu am tuberculose. Mhm. ndaxte wàllam yombul yomb bi ñu ko xalaatee que ba pare ku am tuberculose tamit soo ko jàppalee ci lay gën a gaaw a wér. ndax su fekkoon ne noonu la doon defee kon ñun docteur ñun ñëpp ñu am tuberculose. dëgg la dëgg la te yéen yéen a ngi koy faj bu baax sax. waaw dañ koy faj day wér. Mm-hmm. nit ki di dox ay soxlaam di liggéey di def lépp. Mm-hmm. donc euh, looloo tax ñu bëgg gën a ñaax askan bi ñu xam di luy tuberculose bàyyi ci xel xam ni ñu koy moytoo. xam mm-hmm. ni ñuy gunge ku am tuberculose ba nga xam ne dina wér ba du mën a delluwaat ci ay activités. fan la xeexam toll fii ci Sénégal parce que wax nga ko léegi nii ñu bëri ci réew mi dañoo foog ni euh, sax amatul wala ñu jàpp ni am yenn feebar yoo xamante ni ñeneen ñi rek lay dal li tubaab naan ça ne peut arriver qu'aux autres alors que euh, na ma yàlla baal mën na dal ku ne mm. euh, waaye boo toppatoowee sa bopp éviter ko euh, yéen ci programme bi ngeen nekk ci ay xayma ndax feebar baa ngi dañ ci Sénégal par ndànk-ndànk ñi koy am ñu ngi wàññeeku waa tuberculose ñi koy am Sénégal fi mu nekk nii fii ñu toll nii li ci am solo mooy ne ñi ngi gën a mën a faj nit ñi mm-hmm. fi mu nekk nii képp ku am tuberculose yàlla wommat la ba nga dugg ci structure sanitaire. Mhm. macha allah presque ñoom ñëpp dañuy wér à plus de 86 pour cent l' année dernière ñi ñu traité ñëpp wér nañ. très bien Peleng. Mhm. nga ni Peleng. dégg <laughs> nga lii. carrément Peleng. <laughs> jeex na léegi euh, am solo nag ci tuberculose mooy ne fi mu nekk nii. Mhm. ci xeex tuberculose bi li ñu ci gën a am problème. mooy ñi nga xam ne dañuy sëqat. suqat yu weesu fukki fan ak juróom te ñëwuñu hôpital. te saxat boobu mun naa wàlle. loolooy màndargaawu ci loolu la ñuy njotte ko am tuberculose. d'accord il faut mu nekk sëqët su tar gu weesu fukki fan ak juróom. Ah. waaye nag Sénégal kan ci ñun rek sëqët rek mooy tax nga dem hôpital. amul daanaka. looloo tax nag. looloo tax ñu bëri dañuy am tuberculose di ko xam. di ko doxantuwaale seen i kër. di ko doxantuwaale dina ah sama koñ dañuy gas tali foofu. wala boog liggéey ba nekk sama kër la. wala saxaar wala damaa soj sax. wala damaa soj naan sama soj bi yàgg na nanguwul weer. Eh, loolu la sama soj da man damaa chronique soj. ndekete yoo am na lu ñuy doxaale xamuñu ko. loolu yëpp tamit programme bi looloo tax Sénégal xeex tuberculose programme bi daf ko ci am na fam national de lutte contre la de la santé. bu exister depuis 1986 la ko euh, état sénégalais mettre en place depuis 2012 euh, programme bi ne moom rek du xeex tuberculose jël ONG plan international teg ko ci wetam ne ko lépp luy xeex tuberculose boole ci askan bi ci xeex bi ñu dugal leen ci. Mm-hmm. léegi plan dafay jo euh, dafay nekk ak askan bi gunge askan bi di yee askan bi nan la ñuy xeexee tuberculose nan la ñuy moytoo tuberculose fan ngay dem soo amee tuberculose soo amee tuberculose nañ lañ lay jàppale PNT nekk fee di programme national di joxe garab yi di tàggat euh, kii prestataire de santé yi loolu yëpp ba pare tamit di coordonner loolu yëpp. Mm-hmm. looloo tax léegi xeex tuberculose suñu gisee comme daaw Sénégal am nañ plus de 13 631 cas toutes formes confondues de tuberculose yoo xam ne ñoo dox ba ñëw ba structure sanitaire ñu faj leen. 13000. dafa bëri 13000 13000 sénégalais yoo xam ne te ñooñu rek ñoo ñëw hôpital. Mm-hmm. ñi des suñu kër yi. xamuñu ba fa bëri oh ndax Sénégal dañoom am taux de problème mu euh, génne malade yi am mmh, mmh, tuberculose mmh, ndax suñu mentalité ba tey yeggagul ci consultation ndax rek tout bu am plus de 15 jours looloo gën a tax ñu def journée bi pour gën di yee askan gi di gën a waxtaan ak ñoom ci tuberculose mais mais comme am na ñuy jot a ñëw am na dëgg la ñu des ci kër yi comme par exemple nit bu ñëwee hôpital ba ñu ne ko nga am tuberculose ñu nekk ci kër gi lan lañu war a def est dañu war a vacciner wu naka lañu war a def pour bañ ko am ñoom tamit. kontaan naa ci question bi. xam tax ma kontaan ci. Hmm. parce que là ça nous revient toujours ñu bëri dañoo foog ne soo dëkkee ko ak tuberculose da ngay gis ku daw ñëw hôpital nànk ne ka ma dëkkal dafa am tuberculose lu may def. wala ñu beddi malade ba. Hmm. Ah, ah ndax nit su amee tuberculose su xasee ñëw ba hôpital su jëlee deux jours de traitement wàllatul kenn presque. Hmm. su defee 15 jours de traitement mënatul wàll nit. kon yow ba ngay xam ne nit ki am na tuberculose dafa fekk dafa ñëw hôpital. ñu wax ko am na tuberculose mi ngi faj wàllatu la mhm. kon su la doon wàllu tuberculose wàll na la avant muy ñëw te traitement euh, prévention tuberculose pour moytu tuberculose lu yomb la mhm. aéré ak jan candeeru naaj bi mhm. naaj bi ubbi naaj les rayons waaw ak naa naaj bi nay dugg ci kër gi rek ngelaw li di circuler ci kër gi loolu rek soo ko amee doo gaaw a am tuberculose ah. suñuy ubbi suñu kër yi muy aéré naaj bi di dugg rek que ñun loolu macha allah Sénégal dañoo am naaj ba kontaan kon nañuy ubbi kër yi nañuy ubbi kër yi kër yi donc vaccination kenn du vacciner mag ci question su mu ñëwaatee ci question mm-hmm. mag kenn du ko vacciner pour pour euh, aar ko tuberculose xale buy doog juddu judd la ñuy vacciner mm-hmm. enfant buy doog a judd judd bu bees tàq te dañ koy vacciner rek pour aar ko ci forme yi nga xam ne ñoo gën a graaw gën a gaaw a rey mm-hmm, ci programme de vaccination xale yi la bokk ci programme bi la bokk normalement mooy vaccin bi ñuy defal xale bi jour bi mu juddoo balaa génn hôpital dañ ko war a defal kon tuberculose graaw na léegi par rapport ak euh, bis bi nga xamante ni yéen a ngi koy préparé euh, fii ci Sénégal am nañ ci élément boo xamante ni bëgg nañu ngeen xool ko comme ça ngeen mën a euh, xam ni euh, ñu ngi koy waajal ak waa euh, programme national de lutte contre la tuberculose bis bi ñu jagleel xeexu jàngoro boobule. tuberculose moom jàngoro la <laughs> <laughs> tonton si saqat si métti na yàlla la ko tax a wax doom. ba saqat si yàggul. ah mat na weeru yàlla de. un mois. waaw. dem nga hôpital. xalaatuma ko.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 tuberculose feebar bu ñuy faj la te hôpital boo leen dem di ngeen fa fekk garab yi dañ la koy may doo fay dara tuberculose tuberculose. voilà famille très gentille thank you very much pour ce message là loolu dina jëriñ sénégalais yu bëri am na ñu bëri ñu xamul woon ni euh, bu dee dem nga hôpital ba ñu gis ni am nga feebar boobu euh, la ñu lay garab yi lay jox doo ko fay doo ko fay. doo fay loolu loolu garab gi. loolu am na solo soo duggee ba ñu xam ne am nga tuberculose. Uh-huh. muy garab yi muy analyse bay wane ba ba ñuy wax ne danga nga wér. Uh-huh. dara doo ko ci fay. d'accord alors euh, ci bis bi ban dëkk ngeen di nekk. ren journée mondiale tuberculose ñu ngi koy fêté Kaffrine. Kaffrine ban bis ngeen koy fêté Kaffrine. ñu ngi koy cérémonie officielle bi. cérémonie ak ministre de la santé ñu ngi uh-huh. koy def le 24. le 24 mardi mardi incha allah mais ajjuma. dimanche samedi dimanche lundi yëpp am na ay activités yu ñuy def ci biir Fatick yëpp. Uh-huh. pour gën a sensibiliser population bi Fatick gën a sensibiliser yëpp. Euh, Sénégal ñëpp. d'accord donc dès ce vendredi yéen a ngi Fatick. ñu ngi Fatick pour gën leen a sensibiliser ba ba mardi incha allah. ba mardi jërëjëf ñu ngi lay gërëm. merci beaucoup merci pour tout ce que vous faites pour maladie ak ñi nga xamante ni ñoo am jàngoro ji di tuberculose ak ni ngeen ci sensibiliser askanu Sénégal ñun moom loolu rek la ñu bëgg euh, ci euh, réew mi mu ñu gërëm bu baax waa national tuberculose ak taxawaayu plan international euh, ci euh, feebar boobu ni ñu koy xeexee fii ci Sénégal.